tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub mais ka saa ngi def dégg waaw bëgg waaw xam nga ah waaw wàcc na fi waaw wàcc na fi waaw Yeah. non waaw ah, dëgg la lu moo gën sax waaw li nga xam ne lu moo gën waaw c'est vrai t'inquiète xam naa li nga wax bu baax. Hmm. gis nga loolu ah. kii laa ko ah. moo tax waaw moo tax mu aj def na de. li mu wax dëgg la amul benn problème comprendre naa amul benn problème comprendre naa la bu baax maman li nga wax dama jël entrée bi nii rek am leen salaamaaleykum ça va mhm. masha Allah c'est bon mhm. àcc ah, ñëw fii ci Radisson ak suñu yaay Jeynaba Dabo ak sama dem ba Jàmme fii ci Radisson tey waaye la famille ñu ngi fi tey euh, def retrouvaille def añ tey fii ci Radisson ak famille Demba jàmmee ak ki nga xam ne mooy di famille ki nga xam ne moo di sama yaay Dieynaba Dieynaba Dabo fii ci Radisson ñu ngi noonu ndeysaan Dieynaba Dabo kooku noonu ndeysaan mu ngi noonu arante leen taxaw ñëwal yaay dugal rafet rek image waaw ñëw leen ñëw leen noonu dugal loolu baax na ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen tolloo waa ñëw leen déedéet ñëw leen tolloo dama ngeen tolloo mu rafet rek voilà ñëw leen tolloo mu rafet waaw Ngoné waay taxaw bi baaxul de waaw wax dëgg fan la waaw wax nañu taxaw bi baaxul. su ko tuddee boo ko ko def waaw ñu dem foofu sax jëlee la ñu dem. ah ñëw leen. waaw ñëw leen. ah merci merci beaucoup. nii la ñëwal ah waaw Ngor yi Ngor yi kaay kaay jël ko waaw am na nag waaw bu ne kaay la kaay la mon ami naka mu ziar naa leen. Fall nii ah ñëwal ñëwal ñëwal bien. ki laa soxla. Eh, kaay leen fi kaay leen fi non non non ñëw leen waaw ñëw leen. aussi. Ça c'est ma famille <laughs> mais ça c'est waaw jëlal ñaar yëpp bi voilà mais bouffée dernière bouffée avec mon maman préférée bon maman bon maman et papa bon appétit Laila tey ay jëlant maag yow Laila Seif parce que tey Laila Seif tey mooy suñu dernière bouffée fii ci Radisson ak suñu papa suñu yaay maman Dieynaba Dabo ak kan alaaji Demba Jammeh tey nag ku nekk xam ne tey mooy ci dernière bouffée fii ci Radisson laay nan nga gisee sama ñëwu yaay fii nga xam ne moo di euh, Sénégal. Sénégal. nga xam xaj. dëgg ko jar lañ te ñun xam nga ne man ak yow. ak Wally Ballago Seck suñu patron ku nekk xam na ne Gambia mooy suñu deuxième dëkk ci àdduna bi laay wax ah. ku nekk xam na ne Gambia ñoo bëgg wali Ballago Seck te ah. Euh, uh-huh. ndeysaan dëgg la tey ñu bëri fa ay yaay trop nag yaay bu ñëw bii mooy loolu ah maa ko du compté ndeysaan la uh-huh. suñu ànd ak ñoom di nuyu encore suñu yaay mama mama Olimatu borom Norvège dina ñëw ah suñu yaay encore mama Awa Mbuub borom États-Unis sama gars yi ñu dañoo yaay Gàmbi de ay eh, bu ñu suñu dëkk la waaye foofu lañ koy dagge daandi sama waay la jàmm ñal jaara wala mañ se bi